en tant que leader ci keur Massar dañuy contane ci ñëw président Macky Sall fi ci keur Massar euh ndax contane nañu parce que nit ñi dañu nekk ci naxar nekk ci tiss kon tay bu yàlla defé tay ji ñu ñëw fi kon wax deug yàlla xamna fi mu tek wa keur Massar kon tay président yag na fi lool ñi xaar nak mu génn def intervention parce que li ñu bëgg moy da jël na ay milliards jox ko ñi nga xamne moy sinistré yi te loolu lañu xaar ci président ndax askanama ko ñor nak kon nag kontaan nañ ci président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci suba ba léegi du taxaw taxawaayu askan wi ñun suñu xol da cee sedd lool eh, li may wax nag eh, ndogalu yàlla la te yàlla bu ñu toggee ndogal nag dañ koy nangu nag xam ne nag dañu koy xool nan la ñu mën a eh, nangoo li nga xam ne moom la yàlla teg subhanahu wa taala waaye lii dafay jeex ndax ndox xéewal la waaye buñ ci jógee yàlla na nekk loo xam ne xéewal lu bari moo ciy topp di ñaan tamit. corona bi nga xam ne tamit mu ngi ci àddina yàlla jëlee ko fi kon loolu laa ne woon dinaa ko ci sànni wax dëgg yàlla mouvement bi nag on est 15000 membres dont je suis le président du mouvement pour la solidarité et le développement ànd ak askan wi tey ñu mobiliser wu nag ñun ñëpp ñëw fii ci président tey nekkul loo xam ne lu ñuy tàccu la dañu ñëw pour naqalu askan wi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi muy tiis kon nag tey nekkuñu ci campagne ñii ñëw nag di ko campagne dañu ne loolu du warul parce que ci tiis la ñu nekk kon ñu ngi remercier président Macky Sall ak waa Kër Massar yëpp jërëjëf.